Euh, voilà di leen nuy di leen jaaraat di wax rek euh, tiis bi nga xam ne dal nañu euh, ci yoonu Saint-Louis bi Ngën Saar nga gis ni boo ko rombee tuuti rek ci dëkk bi ñu naan Mandu Diop. gis ngeen accident bi ci am mu bëri ñu ci ñàkk seen bakkan mais jamono gi ñuy wax ak yéen fële hôpital Amadou Sakhir mbay dañu soxla li nga xam ni mooy sang yéen. Euh, population bi waa Louga dañ leen ñaan di lancer appel ngeen dem léegi nii hopital Amadou Sakhir Mbaye ndax blessé yi dañu soxla li nga xamante ni mooy euh, deret pour ñu euh, mën leen sauver waaye di wax rek euh, ñi ci ñàkk seen bakkan bari na trop am na ñi nga xam ne ñi ngi tëdd nii jot nañu yóbbu ñenn ci euh, ñi ci ñàkk seen bakkan ak blessé yi waaye di wax rek loolu moo fi xew bari na ñi ngi naan 19 waaye ñi nga xam ne fekkee nañ accident bi ñi ngi naan ëpp na loolu waaye mënuguñ leen wax nombre bi exact du ñu def rek lu dul après wax leen ko boo gisee sama côté droit ne am na ñoo xam ni tëral nañ leen fa mais bëgguñu génnee image yi ndax dafa nekk image yoo xamante ni euh, tey euh, bu ko nit ñi gisee rek euh, dina dina dina dina metti trop te metti na sax waaye bu ko nit ñi gisee rek dina leen gën a choqué te lu mel nii am Kaffrine yàggul dara tey mu am ci yoonu Saint-Louis bi dañuy ñaan yàlla suñu borom moom mi nga xam ni moom mooy buur ñu gën a delloo xel ci yàlla tuub jéggulu yàlla jéggal ñu ñaan mag ñi ñaan kilifa diine yi ñaan ba lu mel nii dootul amati ci réew mi eh, donc du ñu wax rek on se donne rendez incha allah ci kanam pour wax leen eh, li nga xam ni mooy nombre exact bi ci ñi ñàkk seen bakkan kon gars yi jamono gi daw leen fële ci hôpital Amadou Sakhir mbay ngeen may eh, dret blessé yi ndax soxla nañ ko lool